ñu fàttalante lenn ci suñu diine nga xam ni ñu ngi woon ci téere boobu ñuy wax ak durusul awwaliya ñu def ak fàttali tuuti ci li ñu waxoon keroog muy muraajaa ñi jàngoon nañu keroog lan mooy al islaam jàngoon nañu itam lan mooy xawaayidul islaam ñu waxoon lislaam mooy ay xawaayid ay ponk la yoo nga xamante ni yu sariya la yoo nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko indi jële ko ci subhanahu wa taala xawaamil islaam yooyu nag ponki sariya yooyu nag mu doonoon juróom ba ci jiitu di nga seede yàlla kenn rek la yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla moo ko yónni yooyu di juróom nga seede yàlla kenn la yonent bi sallallahu alayhi yàlla moo ko yónni jox ko risaala mu indi ko ci jullit yi ñaareel ba nekk iqaami salaat ngay taxawal julli juróom ñetteel ba nekk itaay zakat ngay joxe asuka ñeenteel ba nekk sawmu ramadaan nga woor weeru koor juróomeel ba nekk xajjul bayti nga aj màkka liman istataa sa sabila ci képp koo nga xamante ni sa kartan may na la ko sa alal may na la ko boo ko defee nga am ci loolu mooy li nga xam ni leçon tey bi nag dafay ñëwaat di faram-fàccewaat arkaanu euh, xawaidul islaam yooyu di juróom ba ci jiitu di ma maana ashhadu an laa ilaha illa baat boobu di seede yàlla kenn lan lay tegtale ci jullit bi bu ko waxee lan la ci war a jëfe maanaha an aqtaqida mu ni kenn ku ne dangaa war a fas an allahu waaqidun yàlla subhaanahu wa taala kenn la laa sariika lahu duñ ko bokkaale kenn wala yobadu deesul jaamu bi xaqin te kookee ñuy jaamu yeyoo jaamu ko xayru amul kenn ko ñuy jaamu mu yeyoo jaamu googu ko du yàlla kon li nga war a gëm mooy yàlla kenn la deesu ko bokkaale ak kenn wareesu la jaamu kenn mu yeyoo jaamu googee jaamu googee ko du subhaanahu bokkan na ci ma maana ashhadu anna muhammadan rasulullah nit ki bu waxe ashhadu anna muhammadan rasulullah lan lay tek ci mom maanaha an ataxaqaqa moy ma dëggal ni anna nabiyana muhammadin anna nabiyana muhammadan naka sun yonent yàlla muhammad rasulun ndaw la loo nga xamante ni min indillah mu ngi jóge ci yàlla subhanahu wa taala map onsun ku ñu yónni la min indillah mu jóge ci yàlla subhanahu wa taala li jamii al yàlla daf ko yónni ci nit ñëpp jox ko lan diinil islaam muy di leen diinil islaam ndax yonent yi fi jiitu yëpp yàlla dañu daan yonent ci ay peuple ay nit spécial mais kii nag wama arsalnaak illa kaafatan linnaas yàlla daf ko yónni ci nit ñëpp maa maana iqaami salaat lan mooy taxawal julli iqaami salaat maanaha aadaau salawaat al xams may jooxe di taxawal julli juróom ala suuratil waarida fi diin islam ci na nga xamante ne noonu la ko lislaam melale ni nañ koy jullee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla joxee julli dafa yebal jibril ci waxtu wu nekk mu jàngal ko nan la ñuy jullee yonent bi sallallahu alayhi wa daal di wax ni sallu kama raaytumuni usalli julli leen comme nii ngeen ma gisee may julli kon yàlla jox na ko julli boolekaat jibril mu jàngal ko naka la ñuy jullee kon noonee mu doon jullee noonu la ñuy jullee ci bi surutiha te am na ay sart sarti julli ndax am na lu ñuy wax julli surutu sex ay sart yoo nga xamante ni bu ci dajee sa julli dina wér mais bu ci benn manqué sa julli di wér am na surutul wujub am na sart yoo nga xamante ni bu dajee ci yow julli farata la ci bu manqué julli dootu nekk farata ci yow kon ak sart yooyu nga xamante ni mooy wu wujub sart yi tax julli nekk farata ci yow boo ko defee am ab yool boo ko bàyyee am bakkaar ak ay heure yoo nga xamante ni moom lañ ko utal ñu war ko cee julli mooy awqaatuha al muayyana inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawtuna mawquuta loolu la ñu alquran wax ba ci des di itaay zakat génne aska maanaa ixraaj jusun minal maal mooy ngi génne dara ci sa alal jox ko fuqaraa yi ak masaakin yi mooy ñi nga xamante ni dañoo ñàkk te loolu itam am na ay sart ndax du alal jone lañu war a génne lañu war a génne asaka bu fekkente ni alal joo ju mat la yu toll ci sept cent cinquante mille jëm kaw at mu ne bu fekkee loo dencal cee war a génne ñaar téeméer yu ne dañ ciy génne euh, dañ cee war a génne juróomi dërëm ñaar téeméer yu ne dañ cee war a génn juróomi dërëm bu fekkente nag loo bay la wa aatu xaqahu yowma xasaad yi loolu la ñu subhaanahu wa taala wax li nga bay heure boo ko góobee rek nga daal di ciy génne asika nga daal di ciy génne asaka bu fekkente ne lu asamaan si euh, roose la Euh, ñaar téeméer yu ne fukki dërëm nga ci génn bu fekkente ni yow yaakaroo sa ne ñaar yu ne juróomi dërëm nga ci génn loolu mooy ixraaj jus in min al wal masakin ca lan mooy sawmu ramadan di weeru koor woor weeru koor maanaha al imtinaaw mooy tere sa bopp wala tere woo wala nga bàyyi anil akli wa surbi lekk bàyyi naan bàyyi lépp luy dog koor commencé que nag min tulu al fajri ci biir fajar gi xare ila gurubi sams ba keraa jant bi di soo fajar gu xar nag lañ ci alxuraan loon mooy mën ngay lekk ci guddi gi ba xataa yatabayyana lakumul xaytul abyad minal xaytul minal xaytul aswad boo demee ba lëndëm gi commencé di di jeex leer gi commencé di yër foofu la fajar di di commencé goro mooy bu jant bi duggee ba nga xamante ni julli timis moo ngi jot mooy xurubu sams wax ñu ne nag boo ko gisatul mais bu demee ba solañ la wax nga def ko loolu ci jamia ayaami sax ramadan ci mboolem fani weeri koor loolu mooy sahru euh, sawmu ramadan kon juróom yi mooy xawaaxat mooy ponk yi nga xamante ni ki nga xamante ni dafa dugg ci lislaam daf cee war a tënk boppam di ko joxe ni ko lislaam santaane ba ci jiitu mooy shahadatu an la ilaha illallah moo fasee ni yàlla kenn la deesu ko bokkaale amul kenn ku ñu war a jaamu jaamu googee di am njariñ wala ñàkk jaamu googee di am lor ba ca des mu gëm ni yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla moo ko yónni ci nit ñépp mu indi leen diine lislaam ba ca des mooy dañuy war a taxawal julli julli juróom ca nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale ak ca sarta yamu làmbool ak ay heure yi nga xamante ni ca lañ ko war a jox ba ca des mooy génne dara ci sa as ci sa xaalis ñu koy tuddee asaka jox ko fuqaraa ak masaake ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoo ko yeyoo mujj ba saw sawmu ramadaan mooy nga bàyyi lekk ak naan ak lépp luy yàq sa koor bi fa diggante bi fajar gi xaree ba keraa jant bi di so nga def loolu ci jami ayaam seen ramadaan ci mboolem fani weeru koor kon loolu mooy euh, loolu mooy euh, juróomi euh, xawaaj wala juróomi ponk yi nga xamante ni moom mooy téye téye lislaam ku ci nekk nga xam ni yaa ngi ci lislaam ku ci nekkul wala nga bàyyi ci benn nga xam ni nekkoo ci lislaam lu dul ah, ah, xajjul bayt rek <coughs> ba ca des mu des benn bu ñuy wax ah, xajjul bayt <coughs> mooy bu la yàlla mayee alal nga dem aji aji màkk nga dem aji màkk waxuñu ji nag ziyaare ji ndax léeg-léeg nit ñi dañuy wax ne damay ziyaare ji waaye ziyaare bokkul ak aji nga aji màkk te aji màkk farata benn yoon la lay doon farata ci sag dund benn lay doon farata ci sag dund kon boo seedee ni yàlla kenn la yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla moo ko yónni nga taxawal julli juróom génn asaka wor weeru koor aj màkk sa diine daal di daal di mat loolu mooy ponk yi nga xamante ni moo tënkal islaam asalaamaaleykum wa rahmatullah